3 mai ci atum 2023 di bés bi ñu jagleel wàllum presse ci àdduna wërngal këpp ci boobee occasion ci la journaliste yi di xamle importance bi nga xam ni presse am na ko ci réew mi waaye tamit di xamle ni nga xam ni noonu la réunion de rédaction yi di déroulé mu nekk ay moment de waxtaan ak dollinte xalaat mën nañ ko tuddee sax école de formation. Euh, ça se passe comment il euh, y a le directeur en chef il y a le directeur de publication il le directeur de l'information euh, li nga xamante ne moom mooy traité ci li nga xam moom mooy information yi par rapport à l'actualité ci yooyu réunion de rédaction ci la ñuy defee suwa ci sujet yi nga xam ni ñoom dinañ ko traité waaye ñoo ngi bàyyi xel bu baax li nga xam ni limite yu liberté de la presse waaye ñoom ñoo ngi samp ab laaj te naan est-ce que lii tam buñ ci duggee wala ñu nar cee wax est-ce que du yàq li nga xam ne moom la ñu bokk ñëpp mooy sunu sunu sunu euh, dëkk bi nga xam ne moom la ñu bokk waaye bu ñu jàkkaarlooyee ak yenn sujet yu sensible yi journaliste bi moo ngi xamle ni ndax war nañoo wax loo xam ne day yàq. na angle boo xam ne à la limite da ngay defar moo gën nga yàq mais peut-être bu naree yegg nag ba yegg ci ne lii buñ ci wax parce que buñ ci waxee tam mën na indi musiba. ñu noppi ko. mu mel ni difficulté yi ñuy rencontré bari lool waaye journaliste yi ñoo ngi naan ñoom liggéey ni mu waree rek moo leen ñor. ak lépp lu muy mënti doon l'essentiel pour nous euh, mooy. li nga xamante moom mooy suñu liggéey ñu def ko ci anam yu mucc ayib def ko ci anam yi nga xamante ne nit ñi dinañ leen jox li ñu soxla. tey ci àllarba ji mu nekk fanweeru anniversaire lii de bés bu ñu jagleel la wàllum presse ci àdduna wërngal këpp may occasion ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu ñu fàttali condition yi nga xam ni yii di journaliste yi wala képp ku nekk ci presse moom lay dund ak tamit yenn paramètres yi nga xam ni moo tënk lii di liberté de la presse